bu demee bu wax loolu ça veut dire que voilà am na fu ma tekkee am na am na bët bu may xoolee tu vois ma koy nuyuwaale de passage man aussi man moom mooy sama joueur moom moo yàgg nekk sama joueur sax équipe équipe nationale bi voilà donc euh, ça va quoi. équipe nationale moom joueur ñëpp moom la ñuy ñaan dem jeu ji ko donc euh, yàlla def ma nekk si nekk si booy comme ni nga koy waxee léegi sens la d'une d'une part beneen bi aussi euh, euh, fierté la ma défendre pleuru dëkk bi surtout en équipe ah bokk terrain ak ay Sadio Mané loolu ay rêve la pour pour pour tout le monde donc comme yàlla def na ko nii voilà mbégte quoi. yàggul dara maa ngi mettre si la dem mettre si débuté foofu comme comme euh, ku jóge fii dem dem Metz voilà après intégration break vrai euh, que mënul parce que football moment moo mais après avec le temps ak coéquipier parce que ñi la fa jiitu nous avons intégré et ça s'est bien passé quoi.